ala lillahi diinu kon nañ ko delloo yàlla lii ñu nit ñi bëgg a nanguloo bu ñu ko nangu kenn jaru kenn jaru kenn jaru kenn jaru wallahi kenn jaru bu ko defee nag ñu xam ni jant fenk na bu jant fenkatee bu jant fenkee lan lan lan la sondeel di jëriñati jant bi mooy Seydina Muhammad yàllaa ko fenkal ku yebu nangu ci te ñu amaat yitte ñun bu baax a baax ci bëggaat Seydina Muhammad ñu xool fu mu ñu toll ndax mbëggeel du kàddu mbëggeel du buñ ko wooyee nga génne xaalis mbëggeel du buñ ko wooyee nga fettas inna muhibba li yuhibbu mutiyo nit ku nekk ka nga sopp da koy roy di ko toppandoo kenn la yàlla joxoñ nit roy leen ko muy Seydina Muhammad ngeen baal ba xàq ki may jël misaal seen maam Cheikh El Hadj Malick dañ ko laaj kan mooy sa sëriñ mu ne ah Cheikh ay sama sëriñ de waaye yàlla nee na royal yonent bi kon nañ leen ànd roy yonent bi julit da koy nuru julit day jël jikkooy jullit waaw laqad kaana lakum fi rasulillahi uswa liman kaana yarju llaha wal yawma al axira wa dakara allaha ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وراه وصدق الله وراه ما زادهم الا ايمانا كن لوغيس داي يوكو جولي بوتي نيت كي يوكوول بو يابو مو باي جولي لي نيي واخ نان تنميه ديفلوبمون يوي ييب دا فاي ديفلوبيو تنميه الاخلاق تنميه الايمان يوي ييب دا فاي ديفلوبيو دي يوكو sa ngëm di gën a yokk ida dukira allahu wajilat wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum wa ala rabbihim waaye di julli di gën di dellu ginnaaw fii rek laa ko gisee sëñ Hadi dañuy wax damay wax ni dama feebar dem ci docteur mu seet ma jox may garab jox ma mode d'emploi may jël garab gi di gën di feebar lu xew ah garab ga moma garab ga daf ma wara jitt xol rek inna salata tan anil wal ñi julli nu ñu mel fu fen uppe fu wor uppe fu sàcc uppe te nee na aqimi salaata tarafay nnahaari wa zulafan min al leyli inna alxasanaati yudhibna nu julliti mel bokk yi nu julliti mel nan la julliti mel julli day dindi lépp lu bon ci xol julli day tax nga miinanteeg sa mbokkum jullit jullit day tax nga sopp sa mbokkum jullit booy sëlmal na ngay sëlmale sa naju assalaamu aleykum boo fekkee muy sa noonu nooy sëlmale iyaaka yàkkan wa iyaaka yàkkan ihdi yàkkan assalaamu aleyka ayuha nabi wa rahmatullahi wa assalaamu aley yàkkan te jàmm amul ci diggante jullit yi kenn ku nekk ngi bëgg a rey morom koo wax na mun la julli la te bu julli jagee lépp jàkk bu julli jagee lépp jàkk aqimi salaata li zikri ak tarafa yi nahaari wa zulafa yooyu yëpp alquran di ko indi ba démb démb xutba yi وحدوا كلمتك صووا وحدوا ألفوا الجمع يب جولي جروم يب كن كوتشي غينا اهدنا يو يالا يالا نيو تكشي يون اسك السنغال غي تي يون 95% الجماعه والفرقه ko defee nag damay wax ak wax ak xaaj Malick si muy firi innamal muminuuna ixwa bu ma gisee haat yi bu ma ko ni eey sëriñ haat yi dama ko naan yaa ana yaa ana eey man nan la ko yonent bi sallallahu alayhi wa waxe ka kamasalil jasadi ida shtaka minhu uduwun tadaa lahu saairal jasadi bi sahaari te sequñu ko bokk kenn yéenewul sa mbokk jàmm kenn yéenewul sa morom jàmm ba pare ñu naan allahuma dara tawatul kon xol yee àndul xol yee àndul bu ko defee nag gàmm yii yëpp li ci yonent bi bëgg yëpp mooy ñëwoon def taaliful xulub fexe ba jàmm yàlla yëpp nekk benn tey ñun wóor nañu ni ànd la yàlla bëgg tàqalikoo la yàlla bañ wala takunu ka alladina tafarraqu waxtalafu min baadi ma jaahumul bay waaw bu ko defee nag nañu dellu siwaat nii ngeen di def boroom xam-xam yépp toog nii ngeen di ànd di toog di waxtaan dem seeti mag ñi ñu seetaat nan la ñuy fexe ba ñun ñëpp ñu tënkuwaat ci alquran waaye li ñuy dindi ci alquran bari na fexe nañu ba alquran kenn dootu ko fi àttee kenn dootu ko fi àttee te jullit bu tënkuwul ci alquran lu muy tënku ci xalaati kan xalaat ah waaw fexe nañu ba ba ba miraas ni ko yàlla tëralee kenn dootu ko attee noonu fexe nañu ba xalifa yi jiite réew mi nekk ci kanamu diina ji jubootuñ fexe nañu ba sunuy doom dootu ñu xalaat jëme ci lislaam ci leneen lañuy xalaat jëm te yonent bi ni ko inna arsalnaaka shaahidan inna arsalnaaka sha lu ñu yàlla wax ñun ci alquran li takunu shuhadaa wa yakunu rasula shahidan ñun ñëpp ñu bokkaat yeesalaat sunu pas-pas ci sopp sayyidina muhammad xam ni yàllaa ko woon ni daf ko ni inna arsalnaaka shaahi wa mu wana wa daayan bi idnihi wa siraajan te ñuy dox ci lëndëm shuubuka fi sharqi bilaadi wa garbiha ka ashaabi kahfin waaye fi amiqi subaati mu dem ba ca biir mu ne ما بالكم في حالك الظلمات كو خامني كي ما نكو تودتي صح امنا لو جيتو بين ايديكم نوراني فاتنا ويو تدي نوراني موغي سين نياري لوخاي ذكر وسنه القران اللي في السنه اللي في لوتاخ نين دوخ سي غلاندم القران اللي في سنه اللي في ديكو ليرال ماك نياغي في kii boo ko déggee muy jàngale da ngay xam ni ñii lañuy jàngale te maa ngi xamal xale yi bu ngeen toppee internet bii danañ dem ba alxuraan dootul dëgg du dugg ci seen dënn bu nga defee du ngeen deeyaale mukk leeru alxuraan internet ak li ci aju bari na lool demee ba sukkandiku kenn dootu ko jàng def ko ci sa dënn te gaa yi dañu waxoon ni danañu fexe ba max mahwu alquraanu fi qulubi shabaab sénégal yi loolay mooy seen muxaawala fexe ba dindi alquran ci xolu doomi Sénégal yi te it yonent bi nekk nadiran yooyu yëpp mbokk yi yonent bi di woote pour ñu jaamu yàlla kenn la ñuy jaamu muy yàlla subhanahu wa taala di ko fuglu fu ñu toll damay gaawtu yonent bi ku ko bind yàlla ku ko yar yàlla jàngal ko teggin def ci moom ay jikko fa huwa alladi tama maanaahu وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فمبلغ العلم فيه انه وانه خير خلق الله كلهم كون موم يالا داف موي روي واي تي جيغالي اك جيلالي اك تي واتش اك لبت اك دغو يونت بي كو دغو وون دافا دغو وون با دغو كي كين خاوم فمو جيم pour le woon du wor du waraate la sen mam Serigne Touba wax ne wal ja wa kasratul jahl wal khiyana wa qillatul wafa'i bil amana nee Sénégal liko jaxal moy yàlla gi bari na fi mom Serigne Touba jékki-jékki re hada zaman aqbahu zaman jamono bi may dund de moy yées ci jamono ne ko mbake lutax mune kasratul ne waaw li kasratil asyaani fi buldaani mooy yàlla gi bari na fi mu dem ba ca biir mu ne wa kasratul jahli wal xiyaana réer gi bari na fi war gi bari na fi te ñu réer ñëpp dañoo bëgg a jiite wa qillatul wafaa'i bil amaana koo ci jox dara mu war la lekk nee na li ko gën a yéem nag wa qillatul xayaa'i fi niswaani wa qillatul xayaa'i fi sibyaani kersa amatul nii ci jigéen ñi nii ci xale yi mu dem ba ca biir mu ne wa qillatul axyaari wal abraari royuwaay amatuñu ko ñu ne ko moom Mbàkke lu fi bari mu ne wa kasratu nifaaqi wal fujjaari kàccoor yee fi fees dell dell te lii wax na ko avant 27 bu ko doon wax tey fu mu lu muy wax. xol bu amul tomb ci leer ko yabal mu dal buur raji mi jekku na. xol bu amul tomb ci leer saytaane mooy nekk ca biir di fuur. fu mu ko yabal mu daldi buur rajiimi bàjjo jekku na kolu bu riiri baaba ni muut dootul ma yàlla bëtiit xol bu dee dootul xalaat yàlla boroomam gumba na góor ña jigéen ñi jaxasoo mel ni bëyu sër bi bayal koo jekku def jabar alxëyri jafe naati <laughs> na delloo xel yi tënku ci njub daluñ fi am def ko ab yóbbal ca foofeeti nan si xol yi tënku ci njub fi am def ko ab yóbbal ca foofeeti bari pexe tànk bu gudd barke alal du teenu xëy la tàgge alal ji loo ci bañoo sa dundu loola danañ ko ci def gannaaw sa faddu nan si xol yi ci njub xarit ju ko xalaat adduna tay yi fi xew ni muy doxeeg ca bawoon kat am na ak wóor jazakumullahu ana xayran jërëjëf kon ñun ñëpp ko déggandoo mëtal kóllëre ak sàmmonte koo waxal rafetal sa ànd wàcc sa bopp te maandu tabe teg ca nee nañu waxtu waxtu wu amaana demee mooy kóolute waxtu wu amatul jàpp leen ni bis penc maa ngi jege si waaw nee nañ bu demee ba al amaanatu wa idaatuha ida dayaatu al amaanatu fantadiru saa ñu demee ba sànq kóolute dara amatul koo waxal mu senn koo dénk mu lekk ñëpp loo wax ñu nettali sutura amatu lu la waay gisee nettali ko dañ lay dem sax ba gis la di la tuumaal te yàllaa ngi wax naan wa man yaksib xatiatan aw isman summa yarmi bihi barian faqad ixtamala buhtaanan wa isman moo tax wax na ko sànq innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq mbokk mi moo ko wax sànq pour nit yokk nit jullit dafa war di yéeg waaye jullit war te wàcc te jullit yi fi mu toll dañu wàcc lool te kenn rekk fi rafet kenn rekk fi taaru muy sayyiduna muhammad moom la yàlla joxoñ ne nañ ko topp moo tax yonent bi nee na xayrukum islaaman ahasinukum axlaaqa ki gën ki lislaamam nangu ca yàlla mooy ñi seen jikko rafet bu ko defee nag jikko ci alquran dafa làmb nit ki lépp bàyyiwu ko dara dafa làmm yëg-yëgu nit ki ak action yi muy dafa gépp xalaatam yépp jikko daf ko làmb amul dara dara loo xam ne li jikko bàyyi na ko ci nit day ànd ak moom ci wàll yëpp ca jàkka ja ca kër ga ca usine ba ca ferme ba fu nekk jikko ngi ànd ak yow boo rafetale ca école ba mbedd mi sax am na lan mooy jikkooy julli ñun jullit yi lan mooy jikkooy julli julli julli jikkooy julli alxushoo alxushoo mooy jikkooy julli kuy julli te loolu nekkul ci yow bu yeboo nga teg toroxlu ak ragal yàlla bu ñuy julli fu ñuy jublu penku يا قبلتي إذا وقفت جمالكم إليه وجهت kon yàlla ngay xool yàlla fa nekk mooy boo ne dàng ci penk bi looy gis bàyyi xel ni yaa ngi janoog yàlla léegi teggin yi nga war a séq ak moom ba doo geesu teggin yi nga war a séq ak moom boo doo dugal sa loxo di fay téléphone nit ki daf koy séq ak boromam subhanahu wa taala lan mooy jikkooy wax wax jikkooy wax wax am na jikko al i'rad waaw mooy dumooyu lépp lu bon looy wax na rafet sàng sàngal wax ji ak lu rafet waaye bu ko sàng ak mukk lu ñaaw comportement boo gis am na solo trop ci moom nit koo gis mu baax rek jikko la jikko dañuy wax ni réew moo dem xale ya ñooy adresse mag ñi xale yi xale yi sangu takk ci ripp ak ñin ci batt ak caxagu nag ñooy adresse su mag ñi fi nekk kon nu mag ñi mel ah nu mag loolu loolu la borom bindkat yi wax de réew moo dem xale yi ñooy adresse su mag ñi mag ñi ñoo war a defar xale yi te relève bii di ñëw nara a taxawali diine ëllëg bu fekkee ni nii la ñu nu diine di mel ëllëg te ñun ñooy responsabilité bi baal ma ci ki may jël misaal seen maam Seydi Hadji Malick dañ ko ne dañoo bëgg nga wax ñu yaay kan mun leen man kat feeñaguma sama liggéeyu waajur la sama waajur a def lii ci man bàyyi leen ba mu màggalee mu màggalee ngeen may mën a àtte kon ñun ñi suñuy liggéeyu kon ñun suñu liggéey kañ lay feeñ suñu màggalee nu suñu doom yi mel te nag kullukum wa kullukum kon nañ ci bàyyi xel ku ci demati jàkka yooyu yëpp ñu toppatoo xale yi ëllëg ak si biir di nga waaxu wuti aljanna ñu ne waqifuhum innahum mas'uluun bal humul yawma dañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax mbokk yi yenn yéex lañu wax waaye ci la ñëpp jëm waaw wal xabru sunduqul amal xam nga yàlla dafa joxe ñëpp la yàlla xëy seen wala xat karam na ñëpp dugg waaye nag mu ne wa yutiku ladi fadlin wa likullin darajatun mimma wa alaysa lil insani illa ma nga bëgg ko nga bëgg ko aj ci diw te baaxuloo kon ñu góor bu baax nag teyit mbokk yi njub nekkul ci meewte nekkul ci def yaramu nen te yaramu nen yi bari na te léegi sama mbokk jàng na fi xullil muminina bët yépp tilim na ndax kenn gisatul lu dem nañu ba tàmm ko dem nañu ba miin xool lu bon te bu ñu demee ba miin xool lu bon xool yi day fatt te lu bon tas na journal yi baaxatuñ mais dara baaxatuñ dara yooyu yëpp ñu bàyyi ko xel bu baax a baax bu ko defee nag yàlla na ñuy yàlla boole jàppale laysa albiru an tuwallu wujuhakum qibala wal maghrib walakin albiru man amana billahi wal wal والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة سوق دي وآتى الزكاة سوق دي والموفون بعهدهم سوق دي إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين تو أولئك هم المتقون te نجد ñu فيم تقول كو جسم ام mu toll كو جسم ام am bëgg di nga laaj di ngay dem di seet ba fu mu ko jëlee yooyu yëpp nga di ko nemmeeku ñépp a ngi gëstu nit ñi te ku yàlla gëstu nga torox te yàlla nee na ku topp nit di ko jéem a weer danañ la fekk ci sa biir néeg ci sa kaw dal weer kon nañ leen suturaalante yàlla dem na ba ni inna allaha hayyun waaye sittirun yàlla nee na ku bari kersa la waaye li may bari bari kersa sama sutura xam nga fan la ñuy weeroo ji dëgg-dëgg bu ñu demee ba ëllëg ba kenn ku nekk dem fa nga jëm ci la ñu xamee kenn ku nekk loo liggéey waaye ci penc ba fa ñu taxaw àtteegu ñu iqra kitaabaka kafa bi nafsika yawma alayka xasiba yow rek yaa koy tiim waaye boo demee ba ca biir nag foo dem yàlla ci yàlla musal nga ñu naan maalana laa nara rijalan kunna naudduhum min al ashrar am na ñoo xam ne dañ leen a jàppoon ñu ñu bon tey ñoom ñun jàppoon ñun ñu bon te ñun ñu baax ñun tey ñu ngi biir safara ñoom ñu nga aljanna moo tax nañ rafetal nañu dëggu dëggu ci wax amul njëriñ lii may wax dëgg la walla ah, dëgg la est-ce que man dëggu na wax dëgg ak dëggu du benn de wax dëgg ak dëggu du benn de dee leen ko tàqale bu baax a baax a baax wax dëgg te dëgg woo dafa bari minal mu'minina rijaalun fa minhum wa minhum waaye ma ma maa baddalu naxnu baddal naa wa xayyarna soppi nañu soppeeku nañ bu ko defee nag yooyu yëpp a ngi fi maandu di joxe xaqi jàmbur yi nañ leen joxe xaqi jàmbur yi balay ëllëg <coughs> am na benn xadis boo xam maa ngi ko njëkk a dégg ci Cheikh Ahmad Tidiane si atadruna manil muflis muflis mooy ku ñu sisir dem ba ëllëg nga nekk taxaw gaa yi naan ko al muflisu man laa dirham la ki ñu sisir mooy ki amul dara mu ne déedéet ñu ne ko mooy kan mu ne man yaati bi salaati maqbula wa zakatin wa xajjin wa nangam wa nangam walakinahu qadama hada qasafa hada shatama hada akala mala hada yooyu yëpp yëpp nga julli ba mu baax yàlla wiiru lépp ci kontu jàmbur yi ndax sa lammi ñu nga tegguwul ci deru gor yi fegu nag moom ah xaw ma amatul du ma wax ni amatul ndax am ñoo xam ne génnatuñu waaye fegu bareetul te ñeenti pied yooyu as-sabru wal iffatu wal wa shujaa wal adl ñooy pied yi nga xam ne ñoo yenu jikko ñett yi ñeent yi bu ci daanu yëpp daanu maandu léegi kenn defatu ko li ñu ngeen di tuddee naan justice mooy lan ah waaw baat bi nu ngeen koy tekkee ah atte ci dëgg fu ngeen ko gisati amul ci biir kër yi amul ci mbedd mi amul fenn te li yàlla wax bil qisti walaw ala anfusikum awil wal aqrabina in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima amatul buñ doon woote tey tey dañ naan kii tey doomu doomu nañ ko jël ci man rek doomu doomu alaaji abdullah kii doomu diw la ñu dem tribunal ñu ne ko ñu ne marabu tuuru marabu kenn du ko dugal tribunal tuuru sëriñ kenn du ko dugal tribunal tribunal boo demee daraja joo amoon da nga koy wékki ñu àtte leen yàq ki ngay séq kenn ku nekk dem ak dëgg moo tax àttekat yal na leen yàlla jàppale jàppale ñu ñun ñëpp ya yonent bi nee na ñett lañu ñaar ñëpp a nga safara kenn kaa ngi ci xiini mi bu ko defee yooyu yëpp mbokk yi ñu bàyyi ko dama doon bëgg a waxtaan ci làmmiñ waaye mag ñi ñëw nañu